salaamaaleykum salaam salaamaaleykum Lu Xew TV pour ngeen jàlleel ma samay live ba mu mën a war a àdduna Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar Lu Xew TV. waaw yow ça va yow ah mais lii lan moo ko war a lan moo rek bàyyi yor sa ay cours quoi tamit lu waral loolu. gi cours gi waaw lu waral am lu tax ma yor. lan moo tax nga yor ko. cours gi. waaw daa tax ma yor. waaw Lu Xew TV damaa bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla jàllaleel ma samay live. waaw la xew TV kii nag dafa ma laaj lu tax ma yor kuur gi kuur gi bu ngeen gisee ma yor ko kuur gi waaw dama bëgg ku jàdd yoon Sénégal rek waaw kuur gi daal la ah waaw loolu laa ci loolu laa jublu ku jàdd ah. Sénégal rek ak noo mën a mel ak koo man a doon rek kuur gi daal la mais temps réew mi wala temps yi réew mi gis na pëcc xoo yi gars yi wax jëm fii ñuy wax jëm fee affaire yooyu noonu quoi waaye damay ñëw tontu Ndoye Bane Ndoye Bane laay tontu Ndoye Bane li nga wax seet ci yàlla li nga wax su Ousmane Sonko Ousmane Sonko yow waroo ko wax dara Ousmane Sonko lu mu bon bon bon am na lu mu tekki Sénégal yow nag tekki woo dara lu dul wër di fen rek dooy baax wër di fen rek mooy sa liggéey naan caga bi boo demee bërëg sàmm yow tax nga maanaam muudu muudu yi sax bëggatuñoo am jabar jigéen ñi nekk Sénégal ñoo am jëkkëri muudu muudu ndax ni nga yàq seen der di leen wax lu ñaaw di leen sosal lu ne nga yàq leen yow ndooy baan yow laay waxal lu ne yàq nga ko jabaru muudu muudu yi lu ne yàq nga ko caga ji yow nag avocat caga yi nga waroon doon yow waaye suñu réew moom laaj ñu la ci benn xalaat wax dëgg yàlla. waaw suñu réew ak kilifa diine yi laaj ñu la ci xalaat amoo ca xalaat xam nga yow fan fan nga war a fan lee lay xaar caga ji ngay wër ci boîte yi. ak ci baar yi ngay dem di yàq deru nit ñi di yàq deru caga ji foofu dem foofu. ak nag te dañ laa war a laaj place yow fii ne da leen yokkal promotion xam lu moo tax. Hmm. da fekk foo xam ne kenn xamu ko xamuñu ne sax foofu place caga la nga nga wax ko ci rajo yi wax ko ci internet bi ba ñëpp di dem. yow yow caga yi dañ laa war di fay ndax dañ leen dañ leen a solil maanaam fi nga xam ne man ngay am naa ay gars yoo xam bëree bëri ci Ndakaaru xamuñu woon foofu ay kër cagale mais doyu baan wax boobu noonu moo tax gars yu bëri dafa dem chaque jour dañ fay dem maanaam di xewlu yi te loolu lépp moom moo ko fi benn poste yow ñi fi yow doyu baan waaw noonu nga mën a mel ndax yéen ki leen jiite moom sax intérêt la ku toog mu xalamal la xalamal na Diouf xalamal na ku ne doyu baan laa xal nga déglu mu baax cours gii nag moom phénomène bu bees la bu génn ci man képp koo xamante si nii yaa ngi Sénégal ah te waxoo luy doxal Sénégal lu du sa bopp ak sa poos cours gi daan la dal ak koo mën a doon nag waaw lu xew TV maa leen di nuyu di leen siyaare ngeen jàlleel ma samay live pour ci Ndoye Bane fenkat la naa fekk la gëmu dara triant nga gëmoo la garde corps nga woon rek ak garde corps nga woon boo xam ne di garde plan place jàmbur yi nit ko bon nga nekk fi waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare ngeen jàlleel ma samay live ba mu mën a war a dund Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare kuur gi ngeen baal ma rek ma am lu ma ci wax lu ndaw ndoy baan rek laa ci bëgg a ma waroon bàyyi rek ma saago ko quoi ndoy baan da ngeen waroon bàyyi rek ma saago ko saago benn saaga nii rek ndax colossal ndax day saagawaate moo ñu jàngal saaga ndax mi ngi wax Ousmane Sonko di ko saaga waaw fenkat nag moom weesu deew yow bu naan doy baa Ousmane Sonko fenkat la yow yaay fenkat bu mag bi ndax yaa yor sa micro fu ne nga dem fa lu ne loo xam siiwal ko Sénégalais yaa tax kenn bëggatuta am muudu muudu yi bëggatuñ am jabar ñu dëkk Sénégal bëggatuñu am jëkkëri muudu muudu ndax sa yàq der gi ngay nekk Sénégal nekku tekkiwoo Sénégal dara lu fenkat di wër di fen di duul ak a day ak a jaxase yow ndooy baa yow laa xal kuur gi nag moom sa classe yi moo tax mu jóg képp ku jàddu yoon rek kuur gi dana la dal waa sa Li Xew TV maa leen nuyu ngeen jàlleel ma samay live ba mu mën a raadu ma ñëwaat ci yeneen feem ci yeneen bagage waaw